nit ki ci masala sangu set léeg-léeg da ngay bëgg sangook saabu bëgg a sangu bëgg sangu set hmm? da ngay bëgg sangu njàmpeeg saabu après door a sangu set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 Euh, ndax nit ki bu bëggee sangu janaaba mu dëkk foo xam ne géej dafa am walla dex mën naa yéene dem sangu ci géej gi ñëw rek plongé xam nga yenn yi bëgg trop de détail la mais sangu janaaba moom sa kër la gën a yellee waaxu janaaba bi dem wuti géej mën naa ñàkk génn sa kër yor janaaba bi waaxu jëm géej mën naa ñàkk sangoo ko ci kër gi léegi nag dafa am boroom xam bu ñuy wax al imaamu shawkaani ci téere bi ñuy wax ak durarul bahiya fi l masail al ci buntu sangu janaaba dafa indi ne nit ki bu fekkee fa mu nekk dex nekk na fa wala géej wala ndox mu bëri mën naa yéene sangu janaaba nuur ci ndox mi génnaat loolu waxu boroom xam-xam boolu muy shawkaani mais sikki saaka nekkul ne sangu janaba bi mat bi yonent bi alayhi salatu wassalam jangale moy bi ma wax ak yeneen di ñëw ci yeneen version yi moy yene ak sangu ba fo nga yene sangu ponk yi moy da ngay yene lolu moko wuté ak sangu sang benen façon sangu bi boy sangu pour xey jàngi wala sangu rek parce que da nga ñak da nga koy yéene da nga yene sangu wala nga ñew rek sangu da nga ñew rek sangu do yene tay bu dé sangu ba da nga koy te jaamu yàlla balaa muy wér foog mu ànd ak intention foog nga yéene wa niyatu chartun li saairil amal biha salaahu wal fasaadu lil amal yéene condition la ci mbooleem jaamu yàlla yi jaamu yàlla yi ci yéene yi lay wére mais ci yéene yi lay yàqoo bu yéene bi baaxee mu baax su bonee mu bon moo tax sangu farata day ànd ak yéene mooy ponk mu njëkk beneen bi ponk bi mooy da ngay bomb sa yaram mooy yaram bi yëpp aussi day tooy boo sangoon set ba pare bopp bi tooyul wala tànk yi tooyul wala loxo bi tooyul wala ndig ginnaaw yi tooyul sangu bi baaxul yaram bi yépp dafay tooy loolu mooy ponk yi kon sangu set bu détaillé mooy bii nga xam ne moom la alayhi salaatu wasalaam jàngale léegi nag waxu boroom xam-xam la boo xam ne mujtahid la dafa sukkandiku ci dégg texte yi def ko dañuy wax ne loola am na ay jamono ndox ndox jafe woon na nit ki ku nekk mën a am sa kër ndox moo sangoo set wala demee noonu mais léegi jamono évolué na ba wax dëgg yàlla pour sangu set jarul dem géej na jarul dem géej pour na rek da ngaa bëgg a euh, appliquer benn affaire bu raar ak wane ne def naa ko non te dafa am ci nit ñi ñoo xam ne li leen neex mooy lu raar rek di xool lu raar pour daal di koy appliquer beneen bi mooy évolution bi am nii mooy que ni euh, ci sangu set bi yonent bi dafa déplacé wu à côté lu tax. moy toilette bi mu doon sangoo ndox mi dafay xaw a stagné parce que suuf la n'est-ce pas ñun toilette yi ngay sangoo ndox mi day dem ci rigole bi dem hmm? day taxaw ci rigole bi dem kon bu la leeree ne yow amoo benn arrière pensée ci ne sobe des na fii jarul ngay déplacé wu loolu benn la beneen bi mooy suñ jamono dem na ba léegi da ngay am chasse boo sangoo nga xam ne da ngay ubbi mu tiim la wala chasse boo xam ne da nga koy téye ak raakol di sangu da nga koy téye ak raakol di sangu mën nga ko sangoo set aussi da ngay ubbi chasse bi téye wala nga ubbi ko di téye di raxasu ah di jàpp jàpp fekk raxas nga sa kanam ci jumbax bi ba ci oom bi ci kanam ak ci ginnaaw après nga tooyal sa yaram yépp ba mu tooy ci biir sangu bi soo paree jàppali comme ni mu ñëwee ci beneen riwaay bi soo paree jàppali ñëw ba ci bopp bi masa bopp bi dem dikk masa nopp yi da ngay sangu côté droite côté droite bi ci kaw ba ci suuf sangu côté gauche ci kaw ba ci suuf door a sang yaram bi yépp après door raxas tànk yi loolu ñëw ci beneen version hmm? ñëw na ci beneen ci beneen riwaaya loolu mooy ci gàttal lu aju ci wàllu sangu set beneen bi aussi mooy nit ki ci masala sangu set léeg-léeg da ngay bëgg a sangoog saabu bëgg a sangu bëgg a sangu set hmm? da ngay bëgg a sangu njàmpeeg saabu après door a sangu set su boobaa li ngay def mooy da ngay sangu ak njàmpeeg saabu ba pare ba nga xam ne njàmpeeg saabu pare na ba set nga door a tàmbali sangu set bi nga door a tàmbali sangu set bi beneen bi ci biir sangu set dafa am njàpp dafa am jàpp léegi borom xam-xam yi ndax boo sangoo set ba pare jàpp gi nga am ci sangu set bi mën nga ko julliwaale wala mënoo ko julliwaale li mooy mën nga ko julliwaale am ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañuy dañoo différencier dañ ne bu fekkee sangu set bi sangu set bi pour julli jumaa la par exemple nga sangu set après yéen ci julliwaale ko jumaa te sangu set bi tojul julli jumaa jot mën nga ko julli ñu ne waaye bu fekkee sangu set bi janaba ko waral da nga amewon woon janaaba nga dem sangu pour janaba bi deñ ah sangu bi fay and ak japp ñu ne su boba so bëggee julli da ngay japp mais wax jooju dafa aaji wadali donte borom xam-xam yi mag ñoko wax mais wax ji dafa aaji wadali parce que yow sangu set dafa and ak japp léegi nga ne nit ki japp li mu am munu ko luy dalil bu ko téré mu jullee ko léegi nga ne pour mu wat mu japp luy dalil bu wane ne foog mu japp lu and ak bi donc li borom xam-xam dañ koy wax loolu boo ko xoolee dëgg dëgg da ngay gis ni dafa aajo wa dalil wax jooju fan la tegee dafa aajo wa dalil wallahu taala alam wa rabbi ilayhi aslam xam naa kooku dafa bokk ci bokk séeréer yi si wurutoon ci biir kuur bi wax naa ne ci xadiisu Abdullah ibnu Zayd al ansaari dafa raxas loxo ñetti yoon bi muy commencé mu gallax ndiku sarax ndiku yépp ñett la ko def raxas kanam ñetti yoon waaye bi mu ñëwee ci loxo ñaata yoon la ko raxas ñaari yoon foofu lan laa wax ma ne dafa mélangé entre ñaari façon jàpp n'est-ce pas xam naa da doon nelaw dafa boole ñaari façon jàpp foofu moo wane ne kon dagat na waaw li gën a nekk sunna mooy lan moo jàpp bu nekk nga def ko à côté nga def ko à côté bu nekk nga daal di koy isolé bañ koo booleeg beneen bi wallahu taala alam wa raddu ilayhi aslam jigéen may nañ ko mu massa ci kaw voilam jigéen dafa am ay ñetti étape étape bu njëkk bi mooy mu nekk foo xam ne mën na jàpp à l'aise tranquillement sans dérangement kenn du ko déranger nga xam ne fi mu nekk mureeku na mu massa boppam dem dikk massa nopp yi benn dafa nekk ci lieu public boo xam ni fii jàppukaay bi làqatuwul jàppukaay bi làqatuwul suy jàpp su fekkee kol bi mën naa ubbeeku ubbeeku bu yaatu mu dugal loxoom ci biir masaa bopp bi dem dikk wala même bu fekkee benn loxo bi la koy wee dem dikk ah masa mottalee ko beneen loxo bi masaawa nopp bi masaa nopp bi su fekkee mën na ko def ci biir kol gi baax na lu mooy deuxième étape bi troisième étape bi mooy ñaari njëkk yépp c'est impossible mënta nekk lan lay def day masaa ci kaw ci kaw ximaaram wala ci kaw niqaabam wala ci kaw jilbaabam

cas de fii cas force majeure la situation exceptionnelle dañ koy may pour loolu bu jàllee jàll na du ko defaat feneen situation boobu rek la ko mën a def waaw. ça dépend ci ban façon jàpp la jàpp tànk mën nañ ko raxas benn mën nañ ko raxas ñaar mën nañ ko raxas ñett ça dépend ci ban façon jàpp la jël bi mu jël rek loolu lay joué bu fekkee benn benn la tàmbali bu ñëwee raxas tànk benn bu fekkee deux la def bu ñëwee raxas ko deux fois bu fekkee trois fois bi la jël boo ñëwee raxas ko trois fois te tànk bi aussi su koy raxas day jaarale loxoom ci suufu tànk bi raxas ko sotti ndox jaarale sa loxoom ci suufu tànk bi ba mu wóor la ne tànk bi tooy na te raxas nga ko ndox mi daj na